walqalami wa maa yasturuun loolu moom la sëñ Moustapha war a wax ak yéen nga xam ne kenn ku ci nekk foo teg sa tànk dangay xam ne fii nga ko war a teg su dee da ngaa dox doxin woo xam ne dëppoowut ak charte yi su boobaa dangay xam ne yow kat loo ñàkk lii la ko xañ ñi ci des itam xam ne loolaa la ko xañ. auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilah rabil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al-anbiyaai wal mursaliin wa ala aalihi wa sahaabatihi ajmaiin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen balu xaq di leen baal xaq ñaan suñ boroom mu boole nu baal. leen masawu ci coono yi yal na yàlla nangu lépp te may nu tàmbali ci bismillah may nu it nu àggale ci alhamdulillah kàddu yi ñuy bëgg a wax ku yàgg a bokk ci concours bi miin nga ko waaye kon ñu di ko fàttali ay mbir la yoo xam ne kii bind da cee war a tënku kii bind def cee war a tënku ne ko sëriñ Xaadim waxe kon lépp luy niru tricher tricher xeetu tricher bu mu mën a doon dañ koy aaye koo xam ni kee def nga ko it bu dee ci jataay bi ah yow doo àggale gannaaw jataay bi it buñ ko toppee ba xam ko yow sëw këyit du jàll bi ci des mooy waxtaan kenn bu mu waxtaan ak moroomam ak wax ju mën a doon ku xas ba tàmbali na nga wéy ci noppi ba ba ngay pare naka noonu ku nekk na bind laaj biñ ko jox wala bokk laaj bi mu tànnal boppam baat bu jëkk ba tàmbali ba ba ca mujj ga mu bind ko maas ko suqi ko sadda ko lépp lu ci war ci mbindum alxuraan mu def ko ku it na xam ne lu toll ci sumun lañ ko jox sumun moom lañ ko jox e ëpp ko yéesu ko waxtu wi mu koy bind yit waxtu la ak genn wàll waxtu ak genn wàll ku nekk nga sàmm ko te ñu xam ne bu ñu àggee ca jeexital ba ku nekk dañuy jël saw këyit donte noppi naka noonu bu kenn yor téléphone moo xam danga nga ciy woote wala nga di ci wuyu wala nga di ci xool dara dañ koy aaye ku nekk na ko bàyyi xel bu kenn nga aw këyit moo xam alxuraan lañ ci bind moo xam lañ ci bind moo xam leneen lañ ci bind bu kenn nga aw këyit wu ñu bind dara waxtu wi nga xam ne moom lañ maye ngir bind sumun bi mooy waxtu ak genn wàll koo ca xam ne kii da toog ba mu yàgg nga soxla sa bopp et dugg ci biir na nga yëglu ñi nga xam ne ñooy muraaqibu ñi nga xam ne ñoom ñooy surveillant yi ñu ngi toog nga wax samu muraqib sa ajo koo ci xam ne kii li këyit yi ñu la jox dafa jeex nga am ci ay folli ba tax nga aajo woo weneen kayit wax ko sa muraqib mu jox la aw këyit te ku nekk këyit wan la jox nang ko sàmm bu ko jox sa moroom ndax ku nekk këyit wañ la jox numéro ba ca nekk yow mooy sëb mooy sëb numéro yow kese kon ku ci am aajo ci weneen kayit na yëglu wax ko muraqibam ñu jox ko weneen kayit ku ci am lu mu bëgg a laaj ku ci am lu muy laaj na ko wax ak muraqib bi koy surveiller waaye bu mu ko wax keneen muraqib boobu su ko mënee tontu baax na su ko mënul tontu mu ñëw ci commission bi nga xam ne ñoom ñoo yor tansiix bi Euh, wàllu mbind yéen ñëpp da ngeen a envoyé woon seeni mbind mbind yooyu ah, koo xam ne kii yow yow yow yow yow mi ko yónnee yaa ko bind baax na koo xam ne gis nañ ne yow mii këyit wa nga yónnee woon bindoo ko te loolu daañ ko xam ndax kayit yi ngeen yónnee woon mi ngi ci nun koo xam ne kayit wa nga yónnee woon yow dañ la koo bindal waaye du sa mbind e soo bindee ba noppi dañ koy comparer ak këyit woowee bu ñu dëppoo ñu xam ne sa mbind bu ñu dëppoo wutit na nga xam ne loolu yow mooy la lay xañ kon loolu mooy tomb yi nga xam ne bëggoon nañ ko fàttali eh, ñii bind ak ñi nga xam ne ñooy muraaqibuun yi ñu xam ne ñoom it loolu la ñuy sàmm triche daal mooy ngay xool ci meneen bind maam ngay bind am fenn fooy xool wala ngay laaj sa moroom ngay wax ak sa moroom di ko laaj wala li ma mujj wax léegi mooy yow li nga bind bokkut ak la nga yónnee woon yëpp xeetu triche la. xamaa liñ ciy kii rek mooy ñu xam ne liggéey bi ngir mu nosu bu baax nii ngeen toogee dañ leen a séddale kenn ku nekk daa am ñu ñu la dénk yéen yéen yéen yéen fukk ñi maa ngi koy wax léegi ji bi aadatu fi ñu toogee nii. yéen fukk ñooñu yéen juróom ñi jàkkaarloo ak juróom ñi ci topp sëñ Abdou Seck ak ak Mame Balla Touré ñoo leen yore lépp loo xam ne soxla ngeen ko wax leen ko ñooñu maanaam ñu ñu ñu toppatoo ko. fukk fukk yi ci toppaat li tàmbali li jëm nii sëriñ Alaaji Ndiaye Seex mi ni meli toog ak sëñ Amdi Diop ñoo leen yore actuellement ni si Abdou Khoudous mi ngi mën a jël place am ba ba muy yee ci topp yu mujj na lee sëriñ Mbàkke Sorg moo ko yore ak soxna Mariam Jaxate bu dee jigéen ñi soxna Maam Awa Dem moo leen yore ak soxna jóob ak soxna Fa Fa Mbay Ñang noonu lañ ko kiiyee su ko defee soxna Maam Awa lépp loo xam ne soxla nañ ko nañ ko ko wax mu ñëw ci secrétariat bi ñu toppatoo ko bu dee fële sëriñ Mbàkke Sorg lépp luñ soxla na bàyyi ma Marème mu toog moom mu ñëw lijjanti ko bu dee fële itam sëñ Alaaji Njaay seex ni sëñ Amdi Jóob néew fi moom lu mu soxla na ñëw toppatoo ko bu dee fii sëñ Abdou Seck itam saa luñ soxla ko wax mu ñëw bàyyi fi sëñ Mame Balla Touré su ko defee nag li nga xam ne moom la sëriñ Amdi euh, sëriñ Moustapha Jóob ndax doon wax yéen muraaxibuun yi loolu mooy seen liggéey loolu lañ leen sàmmloo loolu lañ leen xolloo ñu xam ne ñu xam ne heure bi mi ngi tàmbali buñ toogee ba ba ba joxe question ba ñëpp jël seen laaj ba noppi su boobaa foofu la ñuy door a commencé chrono bi mu nekk waxtu ak 30 minutes incha allah waaw voilà question itam dañuy bëgg par par maanaam 10 ñooy ñëw moo nekk nii diis yi ñooy ñëw jël tànn seeni question suñ ñëwee ba toog muraaxi boone yi su boobaa ñi nekk un nañ seen bopp su boobaa ñoom fukki laaj yooyu kenn ku nekk na fekk xale ba fa nekk candidat bi fi mu toog mu jël kayitu laaj bi bind bind turam ci ginnaaw andi ko secrétariat buñ toogee ba tànn laaj ba tàmbali bind ba pare yéen mu raaxi boone yi kenn ku nekk na nga bind turam ci ginnaaw ci ginnaaw fooy bi andil ñu ko secrétariat ñu arrêté ko ndax loolu moo ñuy may ñu mën a contrôler laaj yi ndax candidat bi li liñ ko laaj la bind wala bind ko lépp préparé nañ ko bu baax. anta bi ni'mati rabbika bi majnun